rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi fi teew yépp mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di ci jiital jëwriñu liggéey bi muy sëriñ Mamor ibnu Seex Muhammadul Murtada ak mbokkam yu baax yi mu àndal yépp jóge Sénégal ngir taxawu ci liggéey bi ñu jaarale sunu siyaara ci moom mu yéegalal ñu ko ci al cheikh Mouhamadul Muntaxa hafisahullahu wa raa di ñaan suñu borom moo sàmm leen te may leen fan wu gudd ak wér di siyaara bu baax suñu bokk yu baax yi ñu toogal di di ko tàmbalee ci njëriñu liggéey bii muy cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke mi nga xam ne nii mooy buntub liggéey bi macha allah te mat ko sëkk di ko jox nu yóot mboolem waa jamhiya euh, ak Cheikh Ahmadul Xadim bi ak mbokk yëpp di nuyu bu baax di siyaara mbokk yu baax yi euh, sëriñ Fadilu Buso nga xam ne ñëpp miin nañ ko ci taxawaayam ci lislaam muy koo xam ne ni kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci lislaam di nuyu bu baax it Euh, Serigne naa Mbacké Noara moo tamit kenn du ko présente xam nañ ko bu baax a baax ci taxawaay moom tamit ci liggéeyal Serigne bi ci lislaam di nuyu Serigne Sidi Diakhaté ak Seydina Omar Mbacké Seydina Mouhamad Abdoulahi Ndong ak mbokk yu baax yi ñu ko toogal yépp di nuyu waa jamxe bi ñëpp di ko teg ci loxo Serigne Mokhtar Kandji mi njiitul liggéey bi kon xam naa ne ñu dugg rek ci euh, jox kaddu gi sëriñ naa mi nga xam ne nii moom la ñu tànn ngir mu waxtaanal ñu ci waxtaan wu am solo woo xam ne ni ñëpp la amal njariñ waaye rawatina soxna yi nga xam ne nii bis bi seen bis la di bisub soxna jaara ndax mi ngi waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ne nii ñun famille sénégalaise yi dund ci dëkku nasaraan yi moom la ñuy jànkonteel ndax di dund ci suuf soo xam ne nii ñane ñoo moom suuf sa wala ña ëpp ca ña fa nekk bokkook ñoom diine bokkook ñoom culture bokkook ñoom aada réalité yi tamit du benn te yow lu nga fi andi gën foofu li nga fi wut si noo mën a def ba am fi jëlee fi li la taxoon a jóg ba noppi tamit dara du la dal si wala dara dal sa njaboot ci wuute bi nga xam ne ne wuute nga ko ak ñoom ci wàllu diine ci wàllu pas-pas ak ci wàllu culture ak ci réalité yi dëkk bi defe naa loolu moo waraloon borom liggéey bi andi fi liggéey bi muy as cheikh Mouhamadou Mountakha Mourtada yàlla na ko suñu tabaaraka taala fayal moo waraloon Serigne Touba tamit jóg te mooy yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ma yeboonee sax loolu moo fi andi woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi andi woon yonente yëpp alayhim salaatu wa salaam te mooy defar jikko yi kon nag waxtaan la woo xam ne nii jàpp naa ne kenn ku nekk war ngaa mën a ñëw teewlu ndax njariñ la loo xam ne nii ñun ñëpp mën nañ koo jariñoo te loolu jafe-jafe la bu fi yàgg boo xam ne nii moo waraloon sëriñ bi kër yi nga xam ne ni këri lislaam lañ mu taxawaloon ko ngir gàttandu loolu jàpp naa ne bi muy santaane kër yi booba ñi fi nekkoon xalaa jaaxle woon nañ loolu ci vision bi Cheikh Mouhamadou Mourtada am ndax ñoom dañoo jàppoon na rek ñoom neen ñoo fi ñëw dañuy gaaw am li ñu fi wut te daal di dellu waaye imagine wu ñu woon benn yoon ne danañ a dem ba indi fi soxna yi ba njaboot gi sax juddoo fi loolu lépp bokkutoon ci seen i projet bokkutoon ci tim ci seen i xalaat waaye Cheikh Maodo Mourtada mi nga xam ne ni ku amoon vision la waxuma la sax wàllu baatin diggam dem diggam ak boroomam waaye ku amoon gis-gis la ku xamoon adduna la xamoon na ne bis dana ñëw lu mel ni tamit dana ñëw moo taxoon mu doon waajal kër yi di waajal kër yi lan lay jariñ ak lan lañ ci war a mën a def ak di fi waajal ñu baax ñuy toog Cheikh Maodo Fadal ñoom ak euh, sëriñ Fallou ak sëñ Cheikhouna ngir xam ne bis dana ñëw ak Seydina Omar Mbacke mi nga xam daara la fi yor di mag xam ne bis dana ñëw lu mel nii am kon nag jafe-jafe boobu ku ne xam ne ne ñu ngi koy ñu ngi koy dund bu baax ndax neexut nga jógee Sénégal moo xam góor wala jigéen say waajur sonn ci yow def la leen waroon ci yow te mooy taxawu la ci sa wàllu jàng li war waajur ci doom ñu def te leen man lépp ba nga ñëw fii àndaale fi pas-pas sa lépp waaye nag ak njaboot dab la fi boo xam ne nii kat boo taxawut amaana nit rek la ñuy doon ñu der la ñu bokk ak waaye boo leen taxawut euh, dañuy mujj mel ni waa réew mi ndax ku ne xam ne nit ku nekk doomu environnement am la environnement dafa dafa dafa am solo loolu ci waaye nag ànd ak loolu lépp nag solution war naa mën a am nan la ñuy taxawoo njaboot gi solution war naa mën a am nan la ñuy taxawoo njaboot gi nu ñuy taxawoo soxna yi nu ñuy taxawoo gone yi ba ñu ñu ñu bañ a perte seen pas-pas bañ a perte seen diine bañ a perte tamit seenu taalibe bañ a perte tamit seen culture kon ngir bañ a guddal Serigne naa mi ngi nii ñu teewlu ko bu noppee danañ jox seex Cheikh Modou Fadal Bousso moom tamit mu àggale jataay bi mën cee def ay taxaliqaat mën cee wanewaat génn ci waat ay dégg-déggam yoo xam ne nii bu boobaa. danañu yokk lu baree bari ci li nga xam ne moom la sëñ Cheikh naa jox ndax xam-xam moom ala kulli xaalin du doy kon nag sëñ Cheikh naa ñun ñëpp ñoo ngi lay teewlu di la euh, déglu incha allahu ngir fas yéene jërëñu jërëjëf